nuyu naa ñëpp fii laay tàmbaleeg yéen ci seen revue de presse teel sa kaasu kafe nga ma wax la li xew ci réew mi réew mi askan sunu gaal libération yéene kaay ñun ci faatu ki nga xamante moom ci def ubbil yéene kaay faatu ca turbine yéene ni ma autopsie bi nga xam ne moom la def dàq na lépp lu jëm ci wàllum agression kenn jàmm ko mani moom accident la def ci VDN 3 bi yëgle bi di libération ne chauffeur ba sax placé nañ ko garde à samay propos du ma mas ni laay wax yëglekaay bi ne yooyu la kàddu ko ko yëkkati Barthélemy Dias lay wuyoo Ibnou Sampol Dias yëglekaay bi ne lu ray mbuum da cay dee daxaar mës sa saf ñaari yoon yëglekaay bi ne Barthélemy Dias kàddoom ya mu yëkkati ubbil yéenekaay bi maa ni ko kàddu yi guerre mondial dëgg la jàppe boppam xàndaar wu nekk ci waar bus bu fa dammee wàcc ubbil yéenekaay bi Barthélemy Dias ne jëmi boppam di amatul la am moo di askan wi critique yéenekaay li ma Barthélemy Dias ne émission bi nga xamante ne moom la am ci askan wi du buuse yoota Barthélémy Dias ne li mu def 24 heures yéene kaay engagement la en tant que maire te du séenéew cee moom la neex nee na mu engagé ku ko neex jël ku ko neex eh waay ndaw Samba borom tege tege maanaam maa yi nga xam ni moom la Barthélémy Dias di def ubbil yéene moom Barthé du ci dellu ginnaaw de mbir mi mbirama moom la engagé ak askan wi faaw da ma turbine yéene kaay ma moom kay Barthélémy Dias ci jëmi boppam déclaré na guerre Macky Sall yëgle kaay bi ni ma Barthélémy Dias ne amul jotu fo nee na jotuk liggéey la am nga ma tribune yéene kaay ni ma moom sax dafa bëgg a rencontré ki nga xam ni moo di njiitum réew mi président Macky Sall ma ngay ñaan audience moom Barthélemy Dias teral quotidien ne Barthélemy a tax ma a dëpp ci décision yi ma jël laas yéene kaay ne Barti bu tàngeeg bu seddee bii ñuy wax ak capitaine Touré mile ma ni poste ba am na existe na ba pare Ndakaaru Njaay jal bi ña ko yoroon ci seen jëmi bopp ña nga doon faye ko ci trésor public Vox Populi yéene kaay feelu ko ni Barthélémy Dias ne amul jotug foow te sax dadul xaritub état ma ni man askan wi ma fi tekk askan wi nga xam ni yëgle kaay bi ne ñoom ñoo far njiitum réew mi président Macky Sall ñoo far Barthélémy Dias di ay kàddoom Bart ne dootul nangu harcèlement dootul nangu violence te it dina yéeg ak ñoom wàcc ñoom lu ko soxlawul benn poste ci mairie bi la mu fi fekkoon rek lay wéyal te nit du tax ba mu dellu ginnaaw ci ay propos ginnaaw kàddu yo mu yëkkati yëgle kaay bi ne Barthélémy Dias yëkkati lu tolloog un milliard de francs CFA waaw jox ko ndawi Ndakaaru Njaay jël joob yi yëgle kaay bi ne ni leen moom laa leen di jàppale réew mi ko quotidien ni ma te muy dëgg débloqué na lu tolloog milliard jox ko ndawi Ndakaaru Njaay jël joob mandat yéene kaay ne mairum Ndakaaru Njaay jël joob bi ne li mu bëgg def laa wax kenn mënu ko koo tee def bañu sax sagar xeeñ le maire de Dakar ouvre ëpp alimentaire mondial blé Dakar Times ne Sénégal ci jëmi boppam nar na cee am ay jafe-jafe ma ni gaa ñi lépp la ñu yokk laa wax moo fu góorgóorlu yi jëm ñi nga xam ne dañuy xëy goberi jaas di wuti lu ñu am fu nu jëm ndax diwlin yi mu war a àndal ba ci meew yépp ay yokk revue de presse du jour ko xamle dund gi cher moom kay ku yabu la nga am te desal ko ci koom waaw nga korkoral ko bala ngaa toltalaani di yalwaani 24 heures yéene kaay ni ma lii raam ci ñag la jëm ma ni lii est-ce que dina man dara faaw yokk moo yow naka la ñuy def ba li lay ma ni yow lépp yokk milliards ya yokku na yàpp wa yokku na Walfadjri quotidien ne moo taxit salaire ya yokku na njiitum réew mi président Macky Sall yokku na salaire yi ngir jàppale ñi nga xamante ne ñoo di borom kër yi ubbil yéene kaay bi ne ndax troisième mandat tax mu koy yokkam déet lu ci amade sall moo di moom na yokku rek ña yokku yëgle bi di li quotidien ne moo di waa yewi askan wi ubbil yéene bi ña leen fekk yokku ca la ñeex fatt ay turu yëgle bi ne mooy waa gox yu bees ci élection turbine yéen a kaay ni de passage pour le dépôt des dossiers ou candidature yi gëm sa bopp waaw moom ci jëmi boppam moo jiitu Benno bu jiitu Yewwi ak Wallu ñoom waa PDS 24 heures yéen a kaay ni ñoom ci seen jëmi bopp ni ki aljuma giinu jëm ci lañ fa séene wàcc ci mbedd Géejawaay yëgle kaay bi ni ma retour la ñu wax retourub kan Karim Meïssa Wade l'observateur yéen a kaay ci jamono ji douane di saisir li tolloog 750 kilogrammes de roc ëpp law bés la nga xamante ne moom moo fa xewoon ci diggante asu ak ña nga xamante ne ñoo di sage-femme ya ba at soxna ñàkk ci bakkanam sage-femme ya laa wax àtte nañu leen tëj nañ leen lu tolloog weeru kaso lëm les échos yéene kaay ni ma waaw un mois ferme pour les quatre sages-femmes enquête yéene kaay ni ma beneen scandale ba nga xamante yëgle kaay bi ne ndaw si ñu war na opéré ngir mu am doom te mujj ko am normal doom ja juddu rek dellu ndaw sa xëy ca suba ga faatu ubbil yéene kaay bi gynécologue ba laa la wax ñaari war a a fëgg ki nga moo di Karim Benzema bi a mën Benzema gën a dëggal boppam fexe ba suul ki nga xamante ne moo di Karim Benzema moom Sadio Mané war a wone boppam bu baax fexe jël bile final sunu lamb yéene kaay ne mel ni ku nekk ci ab final gagné rek mbaa perte ubbi yéene kaay bi kooko Gris Bordeaux lay wuyoo le tigre de Fass tigre Fass ba woon di coacham di Tafa Gueye yëgle kaay bi ne kàddu yëmu yëkkate ci sunu lamb moo di Gris Bordeaux contre Balla Gaye 2 le 7 août rek mbaa faatu nga ne ah kon giri waajal baay ma njoon Zarko le 15 mai la sunu lamb ne combat technique ak tactique ah waaye man di giri laa yërëm man gañe mbaa faatu sëy <laughs> latiir bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damet jaageen jëf jërëjëf jaajëf yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy teewlu euh, kenn ku ci nekk ci yéen fa nga ne di dañu teewlu ak fu mën a doon ci réew mi euh, bitim réew ak fu mën di doon bëgg nañ la jox la sa wàcc waay ah la café waaw kaasi kafe yi dañ la koy xellil waa démb damaa dajeeg benn waaye fàllu kafe mu ni ma moom it daa bëgg may xelli kafeem gi <laughs> Bayoro Gueye ak Njool maa ngi leen di jëfal ñoom wax dëgg yàlla seen kafe gi neex na lool Bayoro Gueye kafe gi kafe gi neex na saf na jar waaw Njool moom waa Menu Salaam nee nañ caféem gi moom dañ koy naan di nañaxu waaw di di béeg di kontaan déggal lii ay ci mu ngi doonu euh, kontaan ci képp koo xam ne rek yaa ngi may teewlu marché central bu Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar naa ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp bàyyiwuma kenn. waaw waaw waaw waa Marseille euh, sëñ Xaadim Karbala ak euh, sëriñ euh, Carotte waaw Carotte lay jaay ak sëñ bi mu dendal sëñ Fall foog naa Fall waaw te muy te muy defar lal yi moom it maa ngi koy nuyu maa ngi nuyu di ko bégee. ah di kontaan ci moom di kontaan ci téer yi waaw téer yi avant boo jàddee rek sus Thiès info téer yi ngay jot foofu yëpp waaw li ko tàmbalee ci ñoom ñoom ñoom ñoom Poulo ah Euh, li ko tàmbalee ci gars yi foofu yëpp maa ngi leen di biggee jox leen seen wàccuwaay kontaan ci ñoom ñoom ñoom ñoom Mayoro ah jàll dem ci sama mécanicien sama gars ya kenn du ñoom ci riw mi biggee naa leen jox leen seen wàccuwaay ba ci defarkatu ci nii bàyyiwuma kenn Thiès Info euh, doole jën ndox la waaye dooleem yéen ñi koy teewlu la ay ci mi ngi noonu ma nii nag waaw Aboubacar Daabo sama waa ji nuyu Aïcha Ndom nuyu Mor Sarr Ndiaye ah nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax danaa ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi may teewlu waaw faaw ma leen di bëggee moo tax damay bëgg léegoo leeg gars yi ngeen di dugg ci commentaire yi rek donte da ngeen fay bindu seenu tur sax su ko defee nga xam ne bu may nuyu gaa yi rek damay yëf yi day yomb damay dugg ca Euh, commentaire rek liir ña fa nekk ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp day bokk ci li may yombalal liggéey bi Pape Abdoulaye Ale Fall man koy nuyu di ko jox wàcc waayam El Hadj Sakho Mor Seck maa ngi koy nuyu waaw bëggee Abdoulahat Guèye njaareem noo def ah Papa caw euh, lay Dramé Saloum Saloum bi sama waa ji mi lay namm naa la ah euh, nuyu naa la bu baax a baax merci beaucoup kontaan naa ci yow kontaan ci borom maatam borom maatam maa ngi koy nuyu. waaw faa ma bégg ko béggee Baye Fall bi Baye Fall bi bëgg bëgg Fallou maa ngi koy nuyu Fatima borom Mbour ah Basirou Dramé euh, taalibi Serigne mu Mbacke maa ngi koy béggee ah bàyyiwuma kenn ma bàyyi kenn de Diagne Diagne Fall Diagne Fall maa ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. waaw ah, nuyu nag bu baax a baax madame le maire waaw madame le maire madame le euh, moom ma nga ca euh, fa nga xam ni moo di. ca Poroxaan waaw ca Poroxaan la ne soxna Ndeye Mbacke PDS madame le maire maa ngi koy nuyu jox ko wàcc waayam waaw kontaan naa ko bu baax a baax a baax ma nga ca euh, Pro Poroxaan maa ngi koy bëggee di bëggee waa Poroxaan gi yëpp waaw di bëggee waa Poroxaan gi yëpp bàyyiwuma kenn képp ku fa nekk rek bëggee naa la waaw bëggee waa Kaolack ndàngaan Ah, waaw waaw biggee naa waa po Kaolack ndàngaan biggee waa kokki waaw kokki dañ may teewlu ñoom kokki nogay kokki maa ngi koy biggee di biggee waa Ceeskaay waa Kaffrine ah nuyu naa waa waa waa Tëngéej waaw ba ci Kër Massar xadee nga fa daf may teewlu ba ci Kër Massar nuyu naa waa waa waa waa route de ah, ca Port ba dama gaa ca Port ba di ma teewlu ñoom jibi ah maa ngi leen di bigee di bigee waa waa waa waa fële euh, Tiwaawoon nan may teewlu sëñ Cuun ca Tiwaawoon maa ngi koy niiw di niiw waa Njaasaan dan may teewlu maa ngi leen di bigee waa Kaolack ndàngaan wax naa leen waa pirum ndiri maanaam daal soppa yi fi ngeen nekk yëpp fekk nañ leen fa jox leen wàcc seen wàcc waay waaw euh, bugguma sañoon nag yéen ñëpp laay lim moo tax may sàkku ci yéen ngeen di bind ci commentaire yi su ngeen ko dee def foofu noonu nga xam ne bu may lim tur yi damay dugg foofu rek lim leen yéen ñëpp wala soit ngeen envoyé message whatsapp 78 296 29 67 waaye daal mi ngi noonu man ak yéen lenn képp la ñu aw ma xàjj ak seen ñi may déglu euh, macha allah ci réew mi bu ma sañoon kenn ku ci nekk ci yéen damay jaar saw tur ni la diw nuyu naa la waaye nag mbokk yi café gi dañ koy naan de dëkk bi doy na waar de. dëkk bii ah man ne dund gi bu géré fu nu jëm ñoon maa ma jaaxal man dund gi bu géré nu ñuy def ah courant bi bu géré ndox gi seer ceeb gi seer diwlin gi seer gaz gi seer dund gi day gën a seer njublan seer yomb ma naan seer njublang day yomb ay waay fu nu jëm ñun ku yobbu li nga am ni ma ko waxee ci revue de presse bi nga koy kor koral ah aka denc bala ngay wër di gobar jaas di tàllale loxo di ñaanaatu ci lu leer laa la wax waaw ku yebul li nga am nga denc ko korkoral économiser jeeg ji ba yàq jigéen ñi ba leen yàq fi mu toll nii dañoo toll réew moo xam ne di réewum solo jamonoy jamonoy solo weesu nañu ko jamono ji ñu nekk ak lii nu gis crise mondiale bii nga xam ni euh, euh, mbir mi dëkk yëpp la laal waay waay waay waay waay mbokk yi romb na jamono yi solu ma ni wàcc leen colu gi te borom kër yi leen di jox mu doy leen yéen lijjanti leen rek les trois repas añ réer ndik añ réer ndik wut leen seeni waal yu baax yu oyof sol fii toll nii mbir mi du ci yére ci jëmm ji la waaw yow fexeel bay am timbre nice ah sol yére yu set na set jërul muy valeur nay set rek jàmm salaam mbokk yi ba suba ak jàmm ak salaam jeeg ji yéen laa waxal tey bu leen fàttali mu leen wax nag lu leer laa leen di tegal mani ni tromb noon jamonoy pasar pasaree jamonoy korkoral la ñu ne jaagin jëf